tagyeer si baatin loolu lu wér la moo taxoon Ahmad Saad al Gharas benn sufiyanke daan na wax ne kullu zahirin yu xaalifu baatin fa huwa baatilun nee na zahir bu ñëwee rek ñi teg na li zahir na zahir gën a wuuteeg baatin su mu ne su boobaa na ngeen xam ne loolu baatil neen la hakaza kon nag bu ñu laajee junay di ne ko lan mooy yar ne ko lan mooy yar mu ne xusnul asharati rek rafet dëkka dëkk dëkkaale kon nak baye talif na téré bi tuddé ko li nga xamanteni mom moy e ruhul adab lan la wax daf na yaxuulu wa ibrahim Ibrahim tuduna turam loolu lu wara a nek la parce que bo talifé téré war nañu xam ki talif téré bi mune ki wax moy Ibrahim koku moy kan moy ne mooy najlu alxaaji Abdul ilahi moy doomi ki nga xam ne mooy alxaaji abdullah xaaju nag mooy ki nga xam ne mooy xajkat bi maalaaji abdullahi moom nee na badrinal wahaaji mooy weer wi nga xam ne mooy tàkkaakoon wahaaj bàyyil xel nag sidd nañ xaagi dafay nekk siixatu mu baalaxa mu ne nag badrinal wahaaj mooy weer wi nga xam ne tàkkaakoon la malaaj Abdoulaye weer la woo xam ne tàkkaakoon la si mbooleem loo xam ne rek xam-xam la buñ soxla tey si àddina malaaj Abdoulaye weer la fa sëriñ bi daal ñuy wax mu ne badrul waxeej mooy lan